non xam nga xam nga ñun Africains, je pense que ñun duñ jël suñu responsabilité parce que gis nga nit lu mu mënti am rek il faut prendre ses responsabilités je pense que Africains, lool mo ñu manqué quoi prendre euh, dañu wara jël sen responsabilité parce que nit ki aussi soy organiser dara da ngay xol parce que bo xolé Coupe d'Afrique bi ñu organiser rek deux ans rek so xolé problème da ci am parce que décembre la club yi duñ bëgg parce que dañ décembre ce jour day au top soko baye mu dem bi après bu température bi day changer problème yi xam nga après ñom ñu bëgg ñëw defaat quatre ans mais africain il faut que nous ñi aussi il faut que équipe nationale chaque deux ans nous dégg équipe yi ñom une coupe d'Europe coupe euh, ñu coupe chaque deux ans ñom dañuy def sen compétition pour mën sen seen de football il faut que aussi sénégalais aussi aussi euh, africains aussi di mën def sen compétition deux ans même ñu ko defoon mois de ñu ko arrêté juin légui dañ koy delluwaat mois de décembre euh, mois de janvier xam nga yooyu je pense que africains duñ tok waxtan sen biir aussi waaw ci africain la parce que africain mo bëggul jël ay responsabilités il faut ñuy nangu jël euh, jël suñu responsabilité vous avez Coupe d'Afrique deux ans mais ñu def deux ans. est ce que gisoon aussi un dirigeant am na est ce que nañ cadeau ci kanam yi. la responsabilité bi xam nga je pour man nit vous dara nga ci da responsabilité lu ci est ama ah, parce que vous avez Coupe d'Afrique deux ans mais deux ans la mënoo toog quatre quatre ans. non équipe nationale dañuy pendant 4 ans lu def kon boobaa dañuy def ay match euh, éliminatoire préparation non loolu mënu il faut que chaque deux ans équipe yi di football parce que aussi jeunes yi bëgg ñëw dafay bëri ñi nga xam ni dinañ mën a def au moins deux CAN wala trois CAN maximum quatre CAN mais am na ñoo xam ne du ñu am possibilité boobu boo fekkee yow da ngay toog nga ne da ngay def euh, quatre ans chaque CAN am na africain yu bëri duñ jouer coupe d' te je pense que africain boo gis rek mu ngi rêve jouer coupe d' Afrique pour defendre euh, maillot dëkkam quoi. Sénégal bi bëgg bi bëgg envisager organiser coupe d' Afrique fii ak na jot naa yu ko yu ko yu yo ah, loolu sa satisfaction la sa côté ou bien. waaw si man dama ciy content parce que man maa ngi ci football génnuma ci ça à dire que jeunes yi aussi dinañ ci que képp kuy football même pour le footballeur sax parce que dinañ am ay infrastructures yu baax nit ñi dinañ mën football ci stade yi xam nga bu fekkee defar nañ amitié defar Demba job xam nga voilà après man man je suis pas pour synthétique synthétique dafa jour yi non day jour yi ku ci gaañu sa cheville du wér ku ci am problème genou aussi du wér. il faut dire la vérité synthétique baaxul tuba bi dañ def synthétique parce que ñom seen dëkk day day neige euh, bu bu taw bi day bëri lool motax ñom lool motax ñu def synthétique mais tay ñaari club yi nga xamni ñoo def synthétique euh, France dindi nañ ko ah parce que xamnañ ni parce que jour yu bëri dañ ci gañu dañ ci gañu Lorient ak euh, Nancy dindiwaat nañ ko defaat nañ ki herbe parce que jour yi dañ ci gagne te bo ci gagne rek sa carrière mën na fa jaare yàqu man xamna ben jour bo xamni daf ci Lorient la nekkoon ño nekkoon socio mais bim ci gaañoo mais si la carrière am arrêté mënatul football synthétique dafa bok même man mi di wax yow dama ci dan entraîné mais man dawuma daw hein ah, duma ci jël risque parce que dañ ci pété ay croisé ce cheville c'est xam nga bon après. ni autorité ñu ba bu ñuy defar ay saak ñu bay ci xel loolu. non dafa am solo xam nga xam nga footballeur aussi buy football bu gaañoo rek c'est fini réalité là lay wax footballeur buy football buggul gagne parce que bu gaañoo rek c'est fini tay Neymar xoolal amna problème ci kiwom mais do xol mukk muy dem ay contact parce que xamna ne bu ko fa laalaté rek parce que dafa sensible fi mu gaañ buñ ko fa laalaté day am problème après néew duñ def synthétique mais synthétique du lo xamni ni moo gën parce que bu tàngee bu naaj bu tàngee day lak tank xam nga xam nga dafa dafa doy wax daal xam nga c'est tellement compliqué football africain mënoo mënoo mënoo comprendre quoi mais synthétique du bok pour man quoi là loolu man sama ki la quoi sama nu ñu koy sama gem gem la sama conviction quoi que synthétique euh, baaxul gis na man man le amna ben benn jour ñu dem équipe nationale ñu dem euh, Paris di entraîner ci synthétique mais dafa daanu rek leyti dafa daanu rek mbagg bi su après non la demul sax sélection xam nga synthétique dafa après dañ naan foofu loolu lañ am comme moyen affaire yooyu xam nga après loolu doo ci mën wax dara quoi mais synthétique bi dañ parce que ñoom seen dëkk day neige te bu même Russie Russie amul synthétique Russie amul synthétique wala dañuy def synthétique ak gazon quoi dañ koy mais doo gis ñu def parce que xam na ni jour bu ci gaañu rek c'est fini sa carrière mën na fa jaaree quoi mais bon après comme que ñun pour l'instant loolu lañ am nañ ci jàpp xam nga nit ki moom la nga am rek nga ciy téye quoi voilà loolu la quoi. bëgg nañ xam Birane hormis football bi grand lan mooy lan mooy occupation grand Birane il est marié s'il est marié oui combien d'enfants la am lan mooy occupation à part musulman nga de père et de mère lan mooy occupation occupation non pour l'instant comme loolu rek man ci académie bi laa kii. à part football bi lan lan mooy occupation lan ngay def chez toi. je fais rien <laughs> defuma dara. non sérieux man su ma nekkoon ci kii bi académie après bon maa ngi nii waajal xam naa une dans une semaine dinaa euh, dinaa delluwaat pour xam nga rek pour dem lijjanti comme que suma affaire booy xam nga pour euh, pour dem lijjanti xam nga rek business yi mayo yi affaire yi. Ngiraan Ngiraan il est riche alors. il est. riche Ngiraan ah Ngiraan yàlla maa ngi sant yàlla après maa ngi. du ma fàtte aussi maa ngi remercier aussi euh, président Augustin Senghor xam nga maa ngi koy remercier bu baax a baax parce que moom tey ginnaaw yàlla ak yonent bi ak samay waajur moom dimbali na ma ba xam nga jàppale na ma daal lu bëri bëri ba affiliation bi ma buggoon jot naa ko voilà aw ma fayam nag yàlla moo am fayam yàlla na ko yàlla fay parce que taxaw na ma jàppale na ma ci ci lu bëri daal xam nga ni du lépp la ñuy wax quoi mais vraiment. maa ngi koy sant di ko gërëm quoi président Augustin Senghor voilà parce que moom nit ah. kan man non yooyu garaawul bàyyil noonu rek affaire yi xam nga rek <laughs> amul problème <laughs> loolu dinañ si waxaat après incha allah. balaa ñuy tëj. waaw non maa ngi sant maa ngi sant bu baax di la remercier ci invitation parce que je pense que waxtaan bi neex na trop ah voilà après je pense que bu ma waxee loo xam ni neexul nit ñi maa ngi jégalu ah parce que xam nga nit ki moom. ken kiwul quoi ken matul dañuy jéem wax rek pour euh, voilà pour defar voilà mais j'espère que dañuy ñaan dal football Sénégal jëm ci kanam parce que tay bo xolé da ngay gis ni vraiment Sénégal am nañ ay talent te bëri nañ ño xamni bëgg nañ nekk footballeur voilà je pense que su leen jàppalee rek dinañ dinañ mëna dem quoi c'est vrai que moyen yi xam nga. si réew mi dëgër rek ci réew mi dafa dëgër ci côté ah. wa non réew mi dëgër na c'est vrai mais nit il faut nga am gëm-gëm aussi. xam nga doo jël fen rek nga teefa ni ok réew mi bu dëgëree mais nit ko aussi da ngay am sa gëm-gëm quoi lu mu metti metti rek amal gëm-gëm ni yow fii nga bëgg jaar quoi je pense que xam nga yàlla bëri na yërmande nit ki je pense que boo bëggee ni fii nga jaar rek yàlla mën na la si jàppale ko jaar bi yomb foofu quoi incha allah